bis bi nga xam ne suñu borom dana dajale ñu jëkk ñaan ñu mujj ña atte leen qul innal awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum gëm gogu ñu wara gëm al yawmul akhir muy al akhirah suñu borom bari na lool lu mu koy lënkale ak gëm yàlla man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir Lol day ñew lu bari ci alquran di ñew ci sunna yonente bi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba mu na ci alquran as-sa' wala fi diko wax sa' da ngay dégg ñu naan bu ta xewé bari na lol lu mu ñew ci alquran suñu borom itam di leral taxaway yi ci nit ñi am am ño xamni dañ ko wéddi ne sa amut buñu dé rek jeexna am ñoo xam ne dañ ciy sikki sàkka am ñoo xam ne nag moom gëm nañ ko wóolu ko suñu borom tabaraka wa taala leeral na diis goo xam ne taxawuk saa muy dikkuk yowmal xiyaam diis na ko lool ci asamaan ak suuf ndax yow man saxilal la ko borom bi tudde bis bu diis la borom bi ne yasalunaka ani saa ayyaana mursaaha danañ la laaj yowmal xiyaam saa kañ la qul innama ilmuha inda rabbi na nga tonti ne xam-xamu yowmal qiyaam saakal kañ lay taxaw bis boobu yàlla di atte jaam ñi yàlla rek moo ko xam laa yujalliha li waqtiha illa hu saxulat fi samawaati wal ard diis na lool ci asamaan ak suuf laa taatikum illa baxtatan du dikk lu dul ci ak mbetteel يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله نيرا دو باري نان لا كاي لاج ملني يو داغا سوار تي كولا كو لاج واي نغا لين تونت ني خم خمو يوم القيام كاج لاي تاخاو لولو فاسوني بروم تبارك وتعالى لا نيك ولكن اكثر الناس لا يعلمون واي لو باري تي نيت نك خمو بروم بي تبارك وتعالى ليرال تارو تيتانجي جاي ام تي بيس بوبا ci kuko wajirul won sun borom ya ayuha nas ittaqu rabbakum in zalzalata saati shay'un azim yen nit ñi ragal leen seen borom te xamne ne sa mu yowal xiyaam bisba neena mbir mu magga a la yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardat wa tadaw kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna الله shadid suñ borom joxe misal ci tiitaange ja fa muy yegg ci ne dana yegg ba ci jigen bu yoron dom diko nampal te xam ngeen ne dom jamuy nampal nam ko yitte la lol waye neena na ko talati neena ku ambon ambu ba dana sipiku ndax tiitaange nga gis ni di ñuy gëweelu di wëndeelu mel na ku mandi te fekk na mandi wuñu waye mbugal ma tar tiitaange ja tar waaye nag ñi nga xam ne ñoom waajaloon nañ ko borom bi nee na laa yaxsunuhumul fasawul akbar tiitaange ju mag joojee ñooñe moom du leen tiital moom la ne wala inna lasina sabaqat lahum minna alxusna ulaika anha mubaaduun laa yasmauna xasiisaha wa hum fi mastahat anfusuhum fiha xaaliduun nee na ñi nga xam ne moom jiitu woon na ñu gëmoon suñu borom tabaraka wa taala doon ko jaamu ñooñu riir ma sax duñ ko dégg suñu borom tabaraka wa taxawuk sa muy dikk ak yowmul qiyam ni mu doone mbir moo xam ne mu dog la mu mu atte la lu mu dogal la wa anna saata aatiyatu la rayba fiha sa day ñëw de yowmul qiyam day ñëw de amul benn sikki sàkka wa anna allah yab'asu man fi lqubuur suñu borom dana dekkal mbolem ñi nekkon ci bàmmeel borom bi del wax ni inna saata la aatiyatu rayba fiha sa day dikk de benn sikki amul ci dikk googu walakin aksara nas la yu'minun waaye nak lu bare bare bari ci nit ñi gëmuñu taxawuk saa gëmuñu dikkuk yowmal xiyam ndax lu bare bare bari ci li nit ñi ñeme ci ak mooy yàlla ñeme ko ci ñàkk jaabu yàlla ñeme ko ci di ci yowmal am yakin, ci atte gi suñu borom nara atte duñu ko defe noonu moo tax yaqin la laaj wa bil hum yuqinun dañ koo war gëm waaye gëm gu ànd ak yaqin borom bi ne wa ma amru saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab nee na mbirum yowmal xiyaam jege gi mu jege dafa mel ne xef xippi rek wala sax mu gën ko jege ndax wax na ñaari yoon iqtarabati saatu ak iqtarabat linnaasi xisaabuhum inna allaha ala kulli shayin qadir borom bi dal wax ne inna saata aatiyatun akaadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tasa nee na saada luy ñëw la waaye ne daf ko nëbb doom aadama yi dafa bokk ci yi nga xam ne moom xamalu ko kenn ngir nag kenn ku nekk man koo waajal nee na bu boobaa benn bakkan bu nekk ñu fay ko la nga xam ne moom la jëf moom la fa teewal borom bi dal wax ne fa hal yanturuna illa saata an taatiyahum baghtatan mo ndax nit ñi dañoo xaarul lu may jekki-jekki rek saa dikkal leen ci mbetteel mo ne day ay màndargaam dikk na faqad jaa asratuha asratu saa dikk na rek yi ñu koy xamee tambali na feñ dafa am yu mag ak yu ndaw yu ndaw yi mom danaka yep dikk na borom bi dafa anna lahum iza jaatuhum zikra andak leral gogu suñu borom tabaraka taala leral dik go xamne ne yowmal xiyaam daf koy dik ci lu dok te ñepp fay tew teewul ba tey am nañu koy weddi wala ño xamne ñom dañ koy sikki sak borom bi ne am na ñoo xam dañuy giñ wa aqsamu billahi jihada aymanihim kon ñooñu day mel sax ñoom gëm nañ ne yàlla am na gëm nañ ne yàlla bind nit ñi waaye nag dañoo jàpp ne dund bi fii la ko yamale dund bu àdduna bi moom dara topp ci in hiya illa xayatuna dunia namuutu wa naxya wa maa yuxlikuna illa dëhër loolu lañ wax dañ ne daal dund am na waaye dund bi fii la yam ku dee daal mbir mi jeex na tàkk foofu la yam foofu la ko yàlla yamale moo tax ñu ne laa yabasu llahu man yamut dañ koo waat ne wa aqsamu billahi jihada aymanihim dañuy giñ ci yàlla fa seen giñ yam ne laa yab asullahu man yamut yàlla daal du dekkal ko faatu borom bi ne bala axa kay dana ko dekkal de wa'dan alayhi xaqa ab digla la boo xam ne bu mu warlul ci boppam la walakin aksara nas la ya'lamun waaye ñu bari ci nit ñi nag ñàkk a xam moo tax ñuy wax loolu borom bi del wax seeni wax ji ñuy wax ne a iza kunna izaman wa rufatan a inna la mabuuthuna xalqan jadida ñoom bokk na ci lii tax ñu yaakaar ne duñu dekki bu ñu gisee ku ñu suul bu ñu ko sulle woon li gën a bari ay yax lañ fay fekk yax yoo xam ne yu fanax la yu ràpp la ñu ne daal kii ndax mën naa dundaat borom bi ne afa ayina bil xalqil awal ndax ba ma leen di bind bind bu jëkk ba nga xam ne yax yooyu sax amu fa woon ndax tële woon naa ko ka bindoon ba dara amut kon kooku dekkalaat la mu bindoon lu jàppandi ci moom la ñu ne in hiya illa xayaatuna dunya wa ma nahnu bi mabusin ñu ne daal dundum àdduna bi rek am dun dekki nun daal dun dekki adduna rek am wa qaala lasina kafaru la tatina saa ñooñu weddi yàlla ne saa daal du dikk xool ne la balaa axa kay rabbi giñ naa ci sama borom bi la tatiyannakum dana leen dikkal borom bi ne wala in qulta innakum mabusuuna min baadil mawt soo leen ne ñii da ngeen dekki gannaaw bu ngeen faatoo la yaqulanna allatheena kafaru in hadha illa sihrun mubin ñu ne yow dal li ngay wax ak njibar la rek yow dal li ngay wax dara du ci deug dekki amut wa idha khila inna wa'da allahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha buñ ne leen yàlla li mu digge lu dëggu la sa di yawmal qiyam amul ben sikki sàkk day dik xultum ma nadri ma saa neen dañ naan nun daal xamuñu luy saa in nadunnu illa dhannan wala bok ah ñong koy jox dal waaye nag wama maa bi mustayqinin amuñu ci lu wóor amuñu ci daal lu wóor mën naa am mën naa bañ a am am na ci ñoo xam ne foofu lañ ci toll suñu borom tabaraka taala tudd melokaanu ñi nga xam ne nag doon nañ ko weddi bis bu ñu dikkee ca bis ba ak nañuy rëccoo xaaloo yaa way la naa man ba azana min marqadina buñ leen yee jógloo leen ca bàmmeel ba yow ma yunaadil munaadi min makaanin xarib yow ma yasmauna sayhata bilxaq zalika yowmul xuruj neena bis bu wote kat ba wote kenn ku ne day mel sa buntu bàmmeel la taxaw min makaril xarib kenn ku nek da nga deg xaaju ko yawma yasmauna sayhatan bil haqq nee na moy mooy bisub génn ba zalika yawmul khuruj kenn du mala ñak génn bu boba ci sa bammel su ko defé nak ñu naan sa ma waada arrahman li de la yàlla digé won wa sadaqa al mursalun nek yonent waxon nañ deug yonent waxon nañ ñu ko ci aduna way ñu noko gëmul won tay nak mi ngi ha sa ma waada arrahman li la yàlla waxon وصدق المرسلون يونتي وخون لن دغ بروم بينا خد خسر الذين كذبوا بلقاء الله نيغا خامني ويدي وون نان داجي بي ني داجي يالا تاي بيرت نان حتى اذا جاءت موسى ات قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ني نون داي نوغي ريتو نوغي ييم سونو بيرت ساغان بي ني ساغانون تي بيس بي با واجي لين كو وون بروم بينا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون Nyaga nga sini seeni nak nak ñu sëf leen ko ci seeni gannaaw ñi wax naan rabbir jiun yalla delloonu aduna la alli amalu salihan fi ma tarakt ndax ma mën a jëf jëf ju baax ci lamu fa bayyi won borom ne innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barsaqun ila yawmi basu. kaddu googu da koy wax rek waye du kaddu gu am njariñ ndax wat mom amut ku xas ya kay ya nga barsaq ba bañ lay dekkal borom bi ne wa yawma taqumu sa bis bu sa taxawé yubulisul mujrimun ñi nga xamne ñëpp ay katchor lañ won dara ñu perte walam yakul lahum min shurakaihim sufaa min don bokal ak yàlla don jàpp ne ñoo leen di sowe yowmal xiyaam neena duñ fa gis ku leen mëna a tinu wa kanu bi shurakaihim kafirin waaye bokal giñ leen don bokal sax dañ koy wetti ko fa don bokkaale jàpp ne mom nee nga moo lay ram yowmal xiyaam bu boba day wax ne mom bokale woowut ak mom mom juk tegi dara borom bi ne wa taqumu bis bu saa taxawee yawma isin yatafarraqun bu boba nak nit ñi tàqali fi ci aduna nit ñu bax ñe ñu baxul ñëpp a jaxasoo bu keroogee nak dañuy tàqali fa amal lasina amanu wa amilu salihat fa hum fi rawdatin yuhbaru ñi nga xamne gëmon nañu yàlla wétal ko di jëf lam leen digal diko sellal ñoña day ñaga ca dari aljana ya di xewlu wa amal lasina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fi l azabi muxdarun ñi nga xamne dañu nag dañoo weddi woon yàlla ñi nga xamne dañu dëggalul won ay dañu dëggalul won dajeb yawmal khiyam bi gëmuñu ko won wala lañu ca jàppoon bokul ak la ca yàlla wax ñoñe day ña ñu tewal te mugal ko borom bi ne wa yowma taqumu saa bis bu saa taxawee yuqsimul mujrimuun maa la bisoo xëy na saa kàccoor yi ñu dëng ñi nga xam ne waajaluñ ko woon dañuy waat naan nun daal amuñu ci àdduna lu dul lu tolloog benn waxtu borom bi ne kazalika kaanu yufakun ña am xam-xam ne gëmoon yàlla moom déggoon li yonent yi andi jàppoon ko waxaala lasina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmi baas sax ngeen ci dogal ak suñu borom bi tabaraku taala ak digam bi ba ci bisub dekk bi am ngeen fa lu ëpp lu yàgg yàgg yàgg ca la suñu borom tabaraku taala dogal kon nag fa haasa yawmul baas tey jii nag mooy bisub dekk bi nga xam ne gëmu leen ko woon walakinnakum kuntum la taalamuun waaye yéen xamu leen woon ne bis bi day ñëw borom bi ne wa amal lazina wa allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-saati musbixoon mu wax ci ñi nga xam ne ñoom dañoo gëmoon bis ba doon ko waajal ñoom bu keroogee neena ñooñu biñ nekkee fii ci àdduna dañ doon ragal yowmal xiyaam bu ñu ko tuddee sax dañuy tiit allazina yaxsawna rabbahum bil xaybi wa hum min asaati musfiquun mu ne yastajilu biha allazina la yu'minuna biha ñi ko gëmul dañ naan yowmal xiyaam da gaaw ñëw way ndek yowmal xiyaam amna na na ñëw waaye wallazina amanu musfiquna minha ñi ko gëm mom dañ ci tiit wa ya'lamuna anna al-haq ñu xamne mom moy deug ala innal allazina yumaruna fi as saa la fi dalalin baid ñi nga xam ne dañuy werante ci yowmal di dana dikk du dikk ñi ngi ci cànkute gu rëy rëy rëy kon nag mbokk yi kenn ku war nga dundal ci sa pas pasu gem yowmal xiyaam te bes bu set ñu gunge nit mujj gi wahana àdduna gannaaw fa mu jëm nag yow wax nañ la na muy demee te nit ñaa nga fay dem yow itam bis day ñëw nga dem fa ah suñu borom wax na la nañuy waajale bis ba yépp man yarju rabbi koo xam ne yaakaar na gëm na dajeeg boroomam fal yaamal amalan saaliha na jëf-jëf yu baax wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada te bu mu bokkaale jaamu gi muy jaamu boroomam dara ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu saxal na ci ak njub ba bis bu ñuy faatu ñu faatu nekk ay julit wala tamootunna illa wa antum muslimuna jooju mu wax bu leen faatu lu may fekk na ngeen nekk dëgg-dëgg julit يالنا برب تبارك وتعالى دفل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين